Sénégal ku doon nelaw na nga yeewu mouvement yi fi woon keroog moo ngeen dekkalaat ci kër gi gaz boole wu ni jaay kii kay dafa am lu ma góoxaloon mais du gaz yow xam nga ban projet nga war a bind jamono juñ toon ni mooy sa projet yi bàyyi di daw dépense dama ne bu ma wayati te na ma jox samay vingt mille bala ma koy porte plainte waaye yow man loolu sama nga ñi da sax xamoo moom moo la mag yow ñëwal fii rek nga may réclamer nga def ci kaani boobar ki ba si beewale buñ waxee nga naan xib ko yi nga war a lijjanti mooy li nga war a dem bay dundee indi fii consommons tout. comme da ngeen di coow coow mouvement am ngeen ma bu bees bu ngeen war a coowal seen bopp yéen ñii kenn ku ci nekk danga ca daw na safaar maro mouvement jàpp ci kër gi laa taxawal mooy nii mooy mouvement bu bees man mii maay opposant bi. yow Abbas kañ ngay am jom. am nga jom ba am liggéey. mais dama si xeet. ku la jàppale rek ngay wër. waaw boo yàqee yónnee ñu suñu añ nañ nañ bu jaree ñu fanaan sax nan fanaan liggéey amul ay kii nan dem eh yow waa bas armée nga am liggéey yow looy liggéey am naa liggéey liggéey fii dafa am ay kàmb ma war a gas fii ége papa xam la la yaa ma noonu liggéey am naa liggéey kañ dem we mais yow yaa ma noonu liggéey am naa liggéey ñàkk sama ndey aw man ngay ah, ah. jàpp si kër gi nga bëgg taxawal mouvement suul sa baay xam nga ma fekk fekk